société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen ñu xëyando yéen i kaay gi du réew ko di jeen ci xëlim ak Assane Sambo nee na élection présidentielle 2024 jamono ji mën nañoo jàpp ba daat nay commencé campagne ba commencé ne te waxtu ak heure ba jotugu la ndax Ousmane Sonko ko jàppee nga xam ne mooy candidature ma waaye nag wër gi nga xam ne moom lay wër Sénégal moom Ousmane Sonko ak dëgër naa yi nga xamante moom la ñu sànni woon loole nag daf koy gën a dooleel moom leaderu Pastef bi maanaam communication la ñuy defar bu ñu sukkandikoo ci Assane Samba nee na tamit yàggatul dara di gis ay leaders yu bare bare ci opposition bi ñoom tim daal di def ay tournée nationale ndax mbir mi nag li des bëreetu la waaye li desal mooy campagne bi commencé na bu dee nag Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ñaar ñii ñoo ngi fexe ba fuqati nguur gi loolee mooy seen yitte waaye nag ñi nga xam ne ñoo si nar a loru naka maanaam askanu Sénégal gi nga xam na ñoo nekk si jafe-jafe yu métte métte rawatina njëgu yokku yeeg dund ki nga xamante ni jafe na loola maanaam mën na la gis nga gis nga gis nga pouvoir bi jamono ji taluñu askan wi li ñu tal kay mooy nan la ñuy def ba toogaat ci bopp réew mi yéene kaay gi wal fajiri nee na Ousmane Sonko ak Macky Sall ñaar ñii seen xeex bi yàgg na lool waaye tamit seen xeex bi tar na loola Macky Sall ak Ousmane Sonko waaye na ngir dualité bi nga xamante ni moo am diggante ñaar ñii ngir dualité bi jeexa Macky nag loolee moo tax mu bëgg a amnistie ki nga xam ne mooy Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall bu ko defee nag bi muy jàmmarloo ak Ousmane Sonko maanaam jàmmarloo boobee nag daal jeex wala nag mu daal di wàññee ko a kaay gi di Rewmi Quotidien ñu koy fekk fa Karim Diakhaté di analyste politique nee na ne meeku tur bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di amala am na si sañ-sañ am na liberté d'aller et de venir moom Sonko te nag Macky bu ko Abdoulaye Wade tegoon Macky Sall wër Sénégal gi mu ko amee woon 2011 ba ma ne la sañ-sañ boobee la Ousmane Sonko ama te nag Macky Sall jamono jii nag li nga xam ne moo ko waroon a yitte la mooy nag nekk si nag soxlay askan wi man a ma la gis nga préoccupation askan wi loolee ci la Macky Sall waroon a nekk waaye na gis nga bu fi nekkee di jéem a bund xataal ñi nga xam ne ñooy opposition bi loolee daf koy gën a tardé la te nag Ousmane Sonko jamono ji ma ne la ku incontournable la ci politique gu Sénégal yéen kaay gi di Vox Populi daal di wax ne diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ma ne la jàmmaarloo bi jàmmaarloo bi tar na de ñi nga xam ne nag ñooy waa ONG Jamra ñoom Mame Makhtar Gueye jamono jii nag li nga xamante ni moom la ñu bëgg maanaam ab médiation diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ndax loolee dina yomb yéen kaay gi de la Tribune nag xëy samp ab laaj de quoi le pouvoir a-t-il ma ne la gis nga nguur gi lan lay tiit lan lay tiit jamono ji di rambax di tële tële maanaam lan lay tiit ci Ousmane Sonko loole la journal bi de la Tribune xëy di laaj ndax dañoo gis ne nguur gi ma ne la bu Ousmane Sonko yëngoo ñoom ñëpp ñuy jayeex jayeexe yéen kaay gi di Walf xëy dañu xibaar naan neexul nag waaye benn bokk yaakaar ñoo ngi ci ay jafe-jafe rawatina assemblée nationale mën na la sursi la ñu nekk ndax nag Abdoulaye Diouf Sarr ak jéego yi nga xamante ni moom lay teg mën na la taxawal ab mouvement di jaay carte loolee nag ci boppam ma na la li xëeñ neexu la te nag Abdoulaye Diouf Sarr mën na lay gis nga bu bàyyee ma Sall bu mu leen bett te nag am na responsable bokk ci APR yoo xam ne ñoom jamono ji nee nañu nañu dàq Abdoulaye Diouf Sarr ci biir APR yéen kaay gi de Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu a nationale seen budget bi yokku nañu ko seen budget bi yokku nañ ci lu toll ci trois milliards yéene kaay gi di alerte nee na présidence de la république seen budget bi soixante onze milliards le palais ba soixante onze milliards présidence de la république seen budget deux mille vingt trois bi yéene kaay gi nag nee na ACCT au conseil des ñoom seen budget bi neuf milliards la yéene gi di direct news nee na jamono ji nga xamante ni ñooy séddale xaalis bi di séddale budget bi naan assemblée xaw ma yokku nañ budget bi waaw présidence soixante onze milliards jamono joojee nag mën na lu toll si ñaari téeméer ak juróom ñet fukk ci école yoo xam ne fees nañu dell akum ndox ba léegi ni mën a la gis nga ubbi tey jàng tey gi ñu doon mën a la dara amu ci lu toll ci deux ñoo ngi inondé fees dellukum ndox ci biir réew mii di Sénégal yéen a gi di Vox Populi nee na nag feebar yii di diabète di cancer di hypertension li muy rey bëri na lool yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njaga nduur nee ma rakk Youssou Ndour bi wala nga ne ma directeur technique bu TFM démb nag dañu koo tegoon El Hadj Ndiaye bu 2STV ndax xam ngeen ne nag 2018 El Hadj Ndiaye dafa porté woon plainte Ndiaga Ndour ak waa TFM ci lu jëm ci wàllum sàcc fréquence wàllum sàcc fréquence waaye nag Ndiaga Ndour 2018 dañu ko waxoon naka weer wu jot na nga ñëw tribunal signé contrôle judiciaire waaye nag Ndiaga Ndour respecté wu ko moo tax démb ñu daal di koy teg loxo waaye nag nee nañu ko léegi daal mën na la àjju ma ju jot ñëwal signé wane na yaa ngi ci biir réew mi li ñu koy toppee nag moom Ndiaga Ndour mooy association de malfaiteurs lëngoo di def ay ñaawteef